waaw asalaamaaleykum mbokk internet di Diégo Parle Foot nuyu naa leen jaar leen di wax képp koo xamante ne gan nga ci suñu chaîne bi duñu la wax lenn eh, lu dul nga abonné te activé bi ndax eh, vidéo bu dugal rek eh, di nga bokk ci ñu koy njëkk a gis wéy leen di like di commenter ak partager vidéo yi loolu ngeen ñu mën a jàppalee bu baax a baax donc ñu ñëw jox leen benn xibaar concernant Iliman Ndiaye parce que ñu bari ñu ngi doon laaj ndax Iliman Ndiaye ñëw na rejoindre suñu gaynde yi waaye loolee tey jii ki nga xamante ne mooy coach su Aliou Cissé na ci leeral euh, ci conférence de presse bi mu doon amale fële ci Cotonou muy Bénin donc ku ne xam ne actuellement Sénégal lay waajal marsam diggante ñoom ak euh, Bénin mooy la 17 bi ñu jëm donc kii di Iliman Ndiaye nag d'après Aliou Cissé du bokk ci euh, bile mars parce que moom mii di Iliman Ndiaye daf doon xaar benn tout tànk moom ak soxnaam Aliou Cissé nee na loolu moo tax mu bàyyi ko ki nga xamante ne mooy mooy soxnaam mu assisté ko jàppale ko.

ci Sénégal Brésil en tout cas euh, Cissé nee na loolu moom moo waral li nga xamante ne mooy euh, absence am et que loolu moom ça se comprendre parce que très important mu jàppale soxnaam euh, assister ko ba nga xamante ne ba mu mucc ci jàmm donc information bi la dina ko wéne di like di commenter jaa ngeen jëf